Euh, dañuy daal di dellu si rek di waxtaan ci li nga xamante ne nii kii di euh, bàyyi ci euh, mbirum féeri bi. bàyyi lañ koy wooyee ndax képp ku nga xamante ne yaa ngi daagu. ci mbiram féeri bi rek moom mooy sa kilifa. kon nag moom mooy seen bàyyi. noonu lañ mën a faramfañ cee wax bi. mu nekk nit koo xamante ne nii nit ku baax la. nit ku yaatu ku mun a uuf njaboot. ku fonk liggéeyam ku mm. bëgg Gambia. dëgg la bëgg réew mi. mënul weesu yow ñu ñëw ne la ñun kat lii lañ bëgg def mm-hmm. Mm-hmm. féeri bi nii lañ ko bëgg a doxalee mm-hmm. lii ak lii ak lii lañ ci bëgg nga jox leen ay xalaat ay idea yoo xamante ne ni wax dëgg yàlla ba fii ñu toll nii njëriñ na askan bi parce que tey am na noo xam ne buñ ko ko bëggoon a doxalee rek xëj na du affect ñoom ñi nga xamante ne nii seen loxo jot na seen gannaaw waaye ñun ñii nga xamante ne nii ba tey ba ëllëg ba suba ñu ngi jooytu ñu ngi jàmbatu wax dëgg yàlla dina doon nekk suñ ay jafe-jafe kon nag ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ci liggéeyam bu rafet ndaxte bu ñaawoon rek konoon tey leneen la ñuy wax si jamono yi nekk nii jërëjëf li ngeen ndaxte boo ko seetloo bu bëri am na yenn yoo xamante ne nit ñi dañoo gisee ne comme ñi nga xamante ne ñooy euh, euh, ni gën a euh, xawtu koolit ñi nga xam seen xam-xam dafa màcc ci mbir économique économiste yu mag yi dañ dee ragal ñu privatise yenn sociétés yi comme lu mel ni Banjul Ferry Services because loolu under authority la nekk te loolu suñ suñ koom-koom bu bari fa la day nekk because soo ko jëlee jox ko koo xamante ne da ko ah, dëkku ci dëkk bi business rek la war a def ci dëkk bi pourcentage bi nga xaman moom lay am daf ko génnee ko réew mi ñu bëri dañuy gis ne ne loolu réew mi loosis lay doon ci dëkkam. dëgg la soo moo tax ñu bëri ñeen ñi nag soo demee bañ dee jël daal dañ ko privatise. <laughs> parce que loo privatise day dox. bu baax di ko sox tey jii ku ne compétition bu amul ci dara. soo uh-huh. tey suñ ko joxoon mun naa la am tey ñu jox ko ñeneen. Uh-huh. ñooñu indi ay juróomi féeri fukki féeri sax ay not ay yenn façon féeri féeri yoo xamante ne. Uh-huh. day jël nit rek. waaw yaa nga sañ sa rek dem dugg ci. bi soo may bagage dugg ci. bi soo yàkkamtee dugg ci. bi soo bëgg te sixte mille ci géej gi dugg ci loolu yëpp mënoon na nekk te du tax ne koom-koom day gën a yokk uh-huh. waaye problème mu féeri bi moo tax ba lu ne nit di ko xalaatee